آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون الآخرة هم أمن إنما بؤست لأتمك مكارم الحق وقال أيضا خير ممن تعلم القرآن تعلمه وكيف في خطي الله جلس يبكي صلى الله عليه وسلم جملة جميلة دلم زيارة دلم رخيل di leen baalu ak di leen baal ak di ñaan yàlla yàlla yàlla ba di jéggal ñu yàlla yàlla nangul ñu li ko jàngal fu leen ko yàlla yàlla jéggal ñu rëcc rëcc te soppi ñu ko ay jiiram boolem tawat yàlla yàlla saafara la delloo la si anam bu wér kenn ku nekk si naqar ak gis yàlla yàlla jéggal la ko su ngay yëg incha allah yàlla yàlla jéggal leen damaa leen aljana réew mi yàlla yàlla yàlla

وسلام عليها وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين. عبده ورسوله. أما بعد فبتحية الإسلام العطرة الكريمة أحيي هذه الوجوه النيرة والأشخاص العطرة أهل الله وقصده الذين لا يشقى بهم جليس لأن مجالسهم من رياض الجنة كما ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ثم أسلم تحياتي إلى ضيوفنا الكرام الذين تجشموا ما تجشموا يكفرون من اهل maa ngi sant bu am subhaanahu wa taala xam ni moom mooy mu daje ci jëlaale mbir mi mu mel ni mooy àndandoo dakkandoo doon benn say ngir sàmm daara ak waa daara ñu ñaan borom subhaanahu wa taala may nu ko fi jàppale mbooleem lu ñuy wut mu am ca lu kawe suñu jot euh, majmaa bi wala jamaa bi ñaar yëpp ci nekk euh, liggéey bi nga xam ne ñu day lu am am solo ndax àddina ñenn ñu nekk lañu nekk buñ ko organisé wul am ñooñu am nañu droit seen ci ñoom ñu doon liggéey ci suñu ndax kenn doxul diggante si école ak xale yooyu ngir mu mën a def ci ñoom la mu jàpp ni loolu mooy liggéey mooy wax ñu mel nañu war ren waaye ndax mel nañ noonu ndax ñi nga xam ni ñoom la système éducatif sénégalais jàngal yar leen ba jox leen ay médiation yu kawe ndax ñooñu ñooñu bu ñu xoolee dañu wax ni ah demeewul noonu ndax boo xoolee sax fu mel ni université nga xam moom la ñuy wax temple du savoir nga xam ne xam-xam jàpp nañ ni foofu la dëkkee boo demee da nga fay fekk violence da nga fay fekk drogue da nga fay fekk débauche da nga fay fekk luy doy waar yoo xam da nga naan ah, nit ñi toll ci niveau bu toll nii ci wàllu biir la nga xam ne nit ñi mën nañ koo bañ a gis am na wàll boo xam ne wala mu nekk ci bind la nga xam ne alquran dafa am lu muy jàngale fan yii weesu yàggul président de la République bi wax naan day soññ jàngalekat yi ci ñu gën a góorgóorlu ci institution si kon yéen di problème am na tax ñu bëgg a créer ñu bëgg a jàngal ay nit ba ñoom ñu doon ñoo xam ni ah, da ngay am si mais alquran dafa jàngale loo xam ne kenn ku ko def suñu borom subhanahu wa taala nee na inna haadal qur'aana yahdii lillatii hiya aqwam alquran mooy diin bi doomu aadama yi ci mbir mu nekk dana ci gën leen ku nekk dana ci gën gën teetu loolu la alquran bi wax. maanaam suñu borom daal di ko suñu bëri rahmatulah taala ci tafsiram bu mag bu am solo boobu ak boobu weer euh, li muy firi aay bi firi bu juróom téeméeri page wala baw bi yi après téere bii yàlla dina ci yëkkati aw nit dana ci sa tëral ak ñeneen xam ne dañu ñëw rek réer ba baw dana fekk nit ñoo xam ne kenn xamu leen woon nga xam ne bu dul woon alquran kenn ko leen waaye seen foog alquran jàng du jàpp alquran dana tax yàlla yëkkati leen ba seen dugub del ca kaw te fay kon ngëneel boo xam ne ñu war a xam la wante góor a dugg ba ngëneel boo xam ne ah, bokk na ci li gën a yéemu ci biir mooy ah, li suñu yàlla ci wax la bokk ñu xool li soxla ko اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية الكتاب. وجدت من يقرأ الشيطان يا رب يا رب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. xam naa li muy def xëy na bon solo des na. amaan Yeah.